saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Jules ma seq ak waa sunu làmb waxtaan wu waxtaan wala fa tukkee bokk na ca problème mu ak dégool diggante Jules ak Ness ak diggante Jules ak Eumeu Sène ba mu njëkkee ca Ness moom Jules la mu xamle mooy Ness dama trahir Ness ñoo bokkoon atelier ñu doon ànd guddeeg bëccëg daawul jóg sunu kër maak moom comme ñu bokkoon ndey ak baay dama ko doon jàppale di ko orienté di ko conseillé mësuma a xalaat ne Ness xelam dana nekk ci bëreeg Jules Baldé sama diggante ak ngay góob ba mu waxee ci Eumeu Sène la mu xam mooy daf ma doon yëgal ay bésama ciy jàpp digganteem ak Bombardier jàpp naa ci ci zahir jàpp ci ci baati damaa safoon sàpp ci préparation combat boobee def ko sama yëfi bopp waaye digganteem ak Modou Lo yëgalu ma woowu ma xamalu ma ci dara man nag maay koo xam ne foo ma yem loo ma yem foofu boo ma woowut yëgaloo ma ma ne part jàpp sama njàmbur digganteem ak dégool lam ca xam mooy ñoom ñaar ñoo doon ànd Cissé ñëpp xam nañ ne damaa tooñ ba ci kanamu yàlla ba mu waxee ca Pikine ak Pikine di lam ca xamle mooy ñun ña fa nekkoon mësuñu am problème suñu biir muy Tyson di man di Baboy di Pape Cissé mësuñu am problème suñu biir dañoo déggoo woon lu kenn ka nekk ñëpp fekk ko ca foo seen kenn ka gis fa ña fa des waaye léegi ña fa dëkkut ñoo ñëw ngir xàjjale ñu bu ñu jàllee ca arbitre yaak seen grève ba tey ci samedi ji lañ fas yéene xam seen ëllëg ci loolu amul ñu jox leen avertissement ñu continuer doxal wala bu loolu amul ñu balaame leen ci làmb ji wala bu loolu amul ñu raje leen ñu summi seeni bulson tekki seeni sifflet juróomi sanction yooyu le journal bi xam le bu arbitre yi moytu danañ ci jël benn ngir sauver làmb ji waa CNG juuxati nañ ci arbitre locaux ya keroog arbitre yu Kaolack lañu gis waaye tey arbitre yu Bignona ñoo fas yéene mos ci mbir mi foofee ca Bignona ñoo fas yéene organiser gala gannaaw yi ñoo ma mbir moomee bu dee ci dimanche yi jabar ñi foofu Saloum 2 ak Petit Baye Fall ñoo fas yéene jàkkaarloo bu dee ci lutte sans frappe Adrien Senghor Waly Diouf moo fa woote teg 1 million foofee ay seen def leng moo fa woote teg fa fa 1 million 500 mille francs galaa ca mbuur tey ci samedi ji waa Fedem production ñoo fa woote teg fa 1 million bu dee tey ca mbam ci samedi ji waa association mbam loog ñoo fa organiser teg fa 700 mille francs loolee moo xew ci samedi beeg dimanche bi ci gox yeeg gox goxaan jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha